li ñuy door mooy euh, jamono ji ab vidéo ba nga xam ne nag dafa def euh, tuuru réew mi yëpp wala sax ci mboolem réseaux sociaux fii ci Sénégal Khadim sàmb ñu gën koo xam moom sax Khadim Samb nekk ab euh, communicateur traditionnel mm-hmm. gannaaw nag jamono yi bi mu yëngu sax ci ab politique ba wane ab pétoowam mu mel ne nag gannaaw fële ca tàmbaa ndaje ba fa amoon am na fa ay yoo xam ne yëkkati na ko ba tax na sax euh, bu waxee rek mën nañu jàpp ni loxo day dar gémmiñ ba ñenn ñi sax jàpp ni moom moomee euh, nit dof moo xam ne nii moom Khadim Samb nag euh, dafa war di mujjee mujjee wax parce que nag ay waxam moom du dafay faral di de ay eh, kaddu nag ya nga xam ne yëkkati na ko fële ca Tamba di xam ne ni rek eh, gannaaw ba mu jaajëfalee moom eh, Macky sàll ci ay jëfam yu rafet yi nga xam ne def na ko xam le na ni rek moom président du doxkat guddi du kuy dàmpalu tey réew mi duñ ko jox ku mu doon nag ay kaddu yoo xam ne ñu bëri nañu ko jëlee bëri na waaye nag dañu ci interpeller rek moom Diégui Diop mu mel ni moom Khadim Samb bu ñu mën nañu ne sax ci yéen la bokk waaye nag dafa mel ni ku bokk ci yéen ku wax yéen kenn doo ko wax dara patt lay def te Khadim Samb ay kat la question c'est naka nga gisee ay kàddu yu Xaadim tout le temps bu waxee loxo day dar gémmiñ te ci yéen la bokk loolu awma ci benn jugement mosuma dégg Xaadim Samb wax mu dar gémmiñ communicateur traditionnel la mm. communicateur traditionnel luy def lu baax rek laa leen dégg ñuy wax mm. def lu baax mm. séddal nit lu baax tagg ba maamu nit ñi fàttali nit ñi démb fàttali ñu ñi suba te di wax nit ñi nañ def une projection loolooy rôle communicateur traditionnel am na dooma may affia ma àgg si léegi nag am na droit wax na dëgg am na droit ni président Macky Sall du ñu jël réew mi di ko jox kuy damp guddi wax na dëgg. damp crime la. damp crime la non attention. parce que y a eu un dossier pendant nañu waxante dëgg góor boo xamante ne dafa ni taxaw bëgg na suñu dëkk bi ñu jox ko ko ak jigéen bu am ñaar fukki at ñu tëju si biir néeg si Covid 19 ku bàyyi ñaari jeegam teg si génn si loo xamante ni couvre-feu woon la fa xew je ne porte pas de jugement. I don't care. li may keer xam nga mooy lan jigéen am na droit justice dans ce pays moom góor googu am na droit justice dans ce pays nañu waxante ak juge juge leeral leen. maintenant nag. xaadim mhm. président Macky Sall la àndal lu ko bu ko neexee. kan ko lu ko xaadim moo fi doon moo fi waxoon Macky dafa war di tëj. di tëj di rey. ay kàddu yi nga xam ne jot na ko fi yëkkati bii bu ci doolee ko it confirmation rek lay euh, indi. loolu ce jugement la mais dans tous les cas Khadim est libre de kañee Macky Sall bu ko neexee. lan moo tax lu tax ku far ci yow nga koy def dara. est-ce que da nga koy def dara pas question de man far. mais ah, ah, yéen jamono bi parce que oh. la muy def ak na ngeen mel ci moom seen mbëggeel ci moom. dafa am yoo xam ne lu flagrant luy nekk ci dëkk bi Aliou Bougazelli sax déjà. pareegu dama doon tagg Macky dama ko tagg ci li nga xamante ni constitution moo ko jox comme chef suprême de l'armée mhm. gardien de la constitution mhm. père de la nation waaye tàggaguma ko si li nga xam ne waxul père de la nation non laisse-moi continuer tàggaguma président Macky Sall si li tax mhm. dama am habitude naan suñuy doom nañ leen di tagg fàttali leen fan la ñu bokk pour ñu mën a ragal jomba def au lieu ko ñuy ragal ba ñu gànna la léegi nag bu ma duggee foofu foofu nag laa koy doom di taggee waaye xam nga dugguma foofu bàyyi ma taxaw fii ci jar na moom mu nit ñi jël dëkk bi di ko ko jox ndax fa mu bokk fa mu jógee c'est le sang guerrier des Déniyanké foofu laa jóge foofu laa bokk ñu bokk foofu bu ñu taxawee di wax mbaa ñuy dox mbaa ñu jox leen une mission dee moo leen di tax ñu bañ a assumer cette mission donc ce monsieur là am na droit ànd ak ku ko neex moom xaadim ni muy waxee ak nu mu koy waxee ak fa mu ko jëlee angle boobu mm. mën a def erreur gis nga wax mm. mën nga ko génnee période bi koy génnee mën nga xalaat nii laay waxee keneen am ci beneen perception am mu neex am mu dëng am mu jub yéen journaliste chaque jour ngeen wax fi njombe yi tooy na innama mais bi moom nëbbuwul bu xaalis nëbbuwul kañ wax na dëgg dama ne duñ jël suñu réew di ko jox kuy dàmp buddi wàcc say ñaari jéeg ci biir kër gi d'accord crime de. ok ku ko massage yëpp de bu doon kalaate bu massage réew mi yëpp doon kalaate gëm naa ni. loo ah, dina doy waar. Ah, li ma ci li ma ci jot a li ak li jot xew la ñuy waxtaanee. Oh, mais yeneen massage nga xam ne ñoo def ci suuf. dans tous les ma perception des choses. parce que mm. moi je suis au moins quelqu'un qui a eu à le droit. ce qui m'intéresse c'est que le droit soit dit et que mm. la justice soit faite. Mm-hmm. ça c'est ma conviction très très profonde. Mm-hmm. moom daaneel la nu muy kañee géeram moom moo ko xam xëy mën na juum mën na dëng mën na mën na bañ jub ci mm-hmm. nopp mais nit dof moom ñëpp dinañ wax ba ma ba ma dégg ko ba mu des vraiment koo xamante ni dafa xool boppam ba mu seppali ko tuddee boppam nit dof. mi noonu leer na ci leneen la dem Salma mbirum Pape Djibril Fall nag gannaaw. Euh, ah. euh, mbir ya nga xam ne euh, jot na am ni ki semaine bi rek fële ca place de l'Obélisque ñuy def ay <laughs> di def ab taxaw ñaxtu nag di ñaaw loola nga xam ne mooy koppar yi nga xam ne moom la ñu luubal ci réew mi am na ci sax ñu naan 200 sañ sëñ Mountakha yooyu nag war nañ koo génne wax dëgg yàlla ñu naqari nañu. ah nañu ko nañu ko génne. Ah? ma ma ma daaneel rek gannaaw Pape Djibril Fall nag ba mu demee yuuxoo ya nga xam ne dañ ko faa yëkkati ba mbir mi sax euh, jur aw euh, sànni ci moom ndax mën nañu ne moom euh, Pape Djibril jamono yi nelawul ndax am lu ko naqari te it sax jàpp na ne rek gannaaw violence ya nga xam ne dund na ko fa pas physiquement waaye naka la ko jiitu dafa am yenn ci yoo xam ne verbalement am na fa ak campagne de yi nga xam ne mooy fausse information yi nga xam ne dañu koy def ñoom seen biir manipulation ba nga xam ne njoxtees nañu ko wala moom sax moom Pape Djibril Fall xam na ne mbir moomee dafay euh, faral ji am ak it euh, yu ñaaw ya nga xam ne jot na ko fa dund di jàpp ni rek ci boobu boobule groupe am na ci ñoo xam ne ànd nañoo ak moom waaye daf ci am ñoo xam ne daal dañuy affiché indo dawal koboy maanaam la ñuy wax euh, ndaw ñi doonu loo xam ne loolu ñu gëm waaye moom Pape Djibril Fall nee na lu mu ci góobee dañu ko gar ndax ñoom lu ñu ñaawal moom dina ko rafetal. jéegi jóg et puis dina porter léegi loo bëgg ma wax ci loolu. noo naka nga gisee yuuxu yu ñu yuuxoo Pape Djibril Fall. je trouve que bon politique qu'un homme politique doit pouvoir se forger mm-hmm. Mm-hmm. et que politique mouvement de masse dafa ànd ak loolu xaar mm-hmm. lii dafay rappeler une chose bu ñu doon wax langue politique bi jël na tournure bu baaxul waxoon naa leen fii la violence sous toutes ses formes qu'elle soit verbale ou psychologique elle est bannir man jéegi lii may def émission bi ñu bëri ñu ngi may saaga instant bi si biir kiw euh, Walfadjri mm. léegi ku génn wax sa point de vue mbaa nga wax sa opinion ñu xas mm, la xas sa yaay xas sa papa te nag fii nag kaay ma wax la dëkk bi ah ku amul luñ la waxal mën ko waxee say waajur mbaa ñu mën ko waxal koo jur mm. nañu bàyyi waxante lu ñaaw li la démocratie c'est une multitude de vision ku ci nekk da ngay seet ku la neex nga ànd ak moom mm-hmm. nañu bàyyi que les gens soient libres lui il a la neutralité il am na droit ni àndul ak Macky Sall am na droit ni àndul ak les radicaux mm-hmm. que y a des radicaux quand tu fais une benn repère da ngay gis extrême droite gis extrême gauche gis si digg bi ñu ci nekk il ne faut pas être ex ni de l'extrême droite ni de l'extrême mm-hmm. gauche mm-hmm. il a droit d'être centriste comme il dit même s'il y autre chose après le centrisme mm-hmm. moi je pense que dëkk bi fu mu jëm nii en tant que les nouveaux politiciens yu jug bees yaakaar lu ñu xalaat moo baax lu ñu wax moo baax lu ñu bëgg moo baax nañu teggi loolu tekk ci suuf l'acceptation d'autrui homme d'état dëgg dëgg foofu lay commencer. Mhm. nañu nangu que les gens ont la liberté de choisir. ànd ak ku ñu xeex <laughs> lii nag ça apprendra à Pape Djibril. ah, <laughs> ah maanaam dafa dooj. Ah. <laughs> mais est-ce que du Pape Djibril cas bi muy dégager biir euh, assemblée tamit am na loo xam ne di ngeen xaw a kii maanaam euh, ni muy ni muy ni doxalee kenn xamul fu mu bokk donc est-ce que du loolu ça me dérange pas hmm. sincèrement moi je me dérange c'est la violence sous toutes ses formes hmm. Pape nu mu taxawee nu mu defee loolu dérange wu am na sénégalais yoo xam ne ils se sont retrouvés à travers sa personne hmm. et sa vision daal di koy jox ay li mu am am na ñoo xamante ne tey taxawoon nañ fi plus forest moo leen taxoon yéeg biir assemblée nationale bi si kii bi passé alors moom nit dañ ko votel gëm ko ko yóbbu ko foofu mais même en politique la neutralité pour man ça n'existe pas du tout. d'accord

xalaat faat dëgg la nee waruma wax boog waaw waxal waxal Aliou Sow ah, quand même di ngeen war wax mooy violence bi fan la jógee ak lu tax ñu koy def ñu di koy dóor ñu koy dóor leer na waa kër waa Pastef la waa Pastef non mais je peux parler là je peux terminer ce que je suis en train de dire non tu dois terminer laisse nous terminer mais ban preuve mooy lan que ni waa Pastef ñoo ko doon dóor. yow ñëpp xam nañ violence bi waa Pastef la. non est-ce que xam nga am nañu ne waa APR la. mais APR mais faut oh. arrêter un peu quand même arrêter un peu. non mais si kenn amu ci lu leer. non mais les Sénégalais ne sont pas fous quand même. mais lii non dama ne dama ne Pape euh, euh, Djibril Fall annonce na plainte. léegi Pape Djibril Fall annonce na plainte. non c'est coupé je peux pas terminer ce que je dis. Hmm. yoon dina def liggéeyam responsabilité yi ñu partagé ko ñu situé ko. te it euh, jege ñun waa APR bu ñu fa nekkoon mimi moom la ñu waroon tas musóoram au lieu que de Pape Djibril dañoo tal Pape Djibril ñun waaw mais mimi loolu dëgg la relation bi mi am ak activiste yi wala sax ña feete woon foofu déjà tagalu mi rek dafa gën a jongo ba bi mu oh. ñëwee belli ko naka ngeen gisee Mimi par rapport ak bi mu nekkee ci yéen Fatima may ma ñëw ci loolu xaaral rek maa ngi ñëwaat léegi ci Aliou Sow mais il faut mu tontu la bu ne Aliou ñëw ci ngi que Salma da ngaa far waaw waaw moom moo daana rek maa def tour de table pour tëj. Hmm? mani mimi jóg balaa may agsi si mimi damay wax la violence kenn amul droit ànd ak ku la neex. non c'est à déplorer vraiment li ñu gis lu ñu lu ñu naqari la te xaaruñu woon ci loolu. parce que bi ñu demee euh, génnee seen i moo taxoon. ñu def ko. je suis d'accord dañ ko naroon faat mi dëgg la waaw Mimi Touré am na droit ànd ak ku ko neex. Mm. na dem fu ko neex. xam nga man lan laay wax politique na rafet. Mm-hmm. parce que nag am na ñoo xamante ne taggoon nga leen fi démb ak bët ki démb. Mm-hmm. boo wëlbati koo taxaw ni mm-hmm. da nga leen di xalab ñi ñuy sip la ku ne nag da ngay ànd ak ku la neex le militantisme ça se paye pas c'est un choix personnel ku ne yaay xool ku la doy nga ànd ak moom Mimi tey jii ànd ak xale yu ndaw yee nga xam ne moo leen doon xas ba di leen saaga looloo këpp suuf comme li war saara wax affaire jëm bu doy na moom à crépuscule de sa carrière politique nañu waxante dëgg d'accord mi ngi ci loo xamante ni jant baa ngi wàcc hmm? à par rapport à son âge ñun ñii taxaw fii te dëkk bi nag ñu na xool doxalin boobu mu war a tracé te mu xam nag bu muy dugg ci politique par accident la mm. ndax le président Macky Sall da ko jëlee woon États-Unis fay ko en tant que cabinet bu mu yore woon pour mu defal ko yoonu yokkute bi mu ñëw gis ne yorul ay jigéen yoo xamante ne intellectuel yu bëri yu fa nekkoon ñu dugal ko ci biir parti bi nombal tànk bu dul nombal tànk jinne mu jox ko ko jox ko ministère de souveraineté en tant que ministre de la justice jóge foofu gisatoo sa bopp da bàyyi waaye na rafet foo faut qu'on arrête cette violence sous toutes ses formes. c'est ma conviction. d'accord yéen ñu pànk ngeen yéen jigéenu APR yi euh, ci ah. leneen rek balaa ñuy tëj ci mbirum protection ngeen ni ngeen ni ngeen ni euh, ngay ngay yëngu euh, jàppale ay ndaw ak i jigéen dossier Adji Sarr bi. lan moo ci doon seen taxawaay. sama taxawaay mooy juste quelques minutes. jigéen bu mu mënti doon. ak foo mënta bokk ak sa couleur yaram bu mu mënti doon aucune femme ne mérite d'être violentée sous toutes aucune femme am mérité wul mu bañ a am justice la justice doit être faite faite et le droit doit être dit rawatina nag ba nga xamee ni kenn koo xam ne dafa bëgg ni nañ ko jol suñuy nombal tànk jox ko ko mu dirige suñu dëkk bi turam takk ci biir man lii laa wax la fa xew góor ak jigéen bu tëju si biir néeg yow ak moom ak yàlla yéen a ko xam li ci des nag après intime conviction juge ak selon les preuves qu'on va amener je fais confiance à la justice de mon pays. jàppandal bi ci Adji Sarr. loolu ah. laa laaj jàpp ah mais comme comme beaucoup d'autres femmes qui sont victimes de violence ah dañ leen jàppale tant sur le plan psychologique que sur le plan financier que sur le plan sécuritaire suñ ko defuloon Adji Sarr rey nañ ko bu yàgg Pape Djibril mii ñu uyee di ko dàqi a di ko dóor Adji bu ñu assuré woon sécurité am kon heure bi jam nañ ko paaka bu yàgg ndax xama mm. appeler à la retenue et à la tenue des hommes politiques de ce pays et ça vous avez un xale yi ko ci waxal mu football la loxo mbaa mu xas la mbaa mu saaga la. Mhm. il faut qu'on arrête. la théorie de la pensée unique n'existe nulle part ailleurs ku mu neex ku la neex ngay àndal fu la neex ngay far. ba sagar xel kund ba lakk. waaw honnêtement dëkk baa ngi ñu da nga da nga jeexal waaw damay kii yeneen rek euh, balaa ñuy euh, balaa may dugg ci heure euh, Cheikh Tidiane. dugg nga ci heure Cheikh Tidiane. lii ci 2023 bi nag mu mel ne ni mu ibbeekoo ci journaliste yi neex na loolu yaa na seen ginnaaw tàng nag bu ñun ñëpp ñu bokk su may dem moom jéegi moom a yóbbu ndax kum yóbbu nga. nga nga nga nga nga toog. ba ma sañ sa la defal la ba mu baax. dégg nga ni man ñëwee ñëwee si yem bi wane sama côté féminisme noonu laa bëgg bëggee jigéen ñi di wane seen yëfu jigéen jigéen balaa baax mën a rëdd crayon teg fossile mm-hmm. Mm-hmm. def mascara def say lèvres ba mu baax mm-hmm. tagal sa musóor ba mu jékk bàyyi sa grand boobu muy direeku je veux qu'on allie toutes ces choses là parce que yàllaa ñu ko may fàtte nga cuuraay bi ah cuuraay du ma ko fàtte ndax fajar ma boye sama anes <laughs> Babacar Fall coach takk na Adama Anouchka ba Adama Anouchka waaw bëggoon dem tey RFM matin a ma ko yàqal ndax Babacar mais kaay nag RFM matin bu ñu mayul dina far di taal loolu tam dëgg la <laughs> programme waaye émission bi dina tàggat yembe naka nga gisee sëy yi daal. journaliste yi daal nous temps nous ngeen di ko defee. yéen daal seen biir daal. suñu confrère suñu consoeur bu marié donc yal na leen waaw tàppee na su baaxee ñu xool keneen ku ci topp Fatou Binetou Diouf ñu koy euh, ñaanal bu baax moom it sëy bi